bokk yi xarit yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ci sunu people TV di leen ñaan ngeen woy di abonné ñu dikkaati kenn ci li gën a fës ci ay xibaar bi ci gën a fës bokk na ci kile di euh, Kunkandé turam dëgg-dëgg di Amadou Julde Diallo ñu gën ko xam ci Kunkandé moom nag gannaaw ba nga xamante ne dañ leen placé woon sous mandat de dépôt le 27 décembre bi passé moom ak kile di Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci sant yàlla ñoom nag tey juge joxe jottali li nga xamante ne moom moo di verdict bi ndax nag ca tribunal bu Thiès ki nga xamante ne moom moo di le juge bi moom nag daal dina joxe li nga xamante ne moom moo di verdict bi ci kii di Thierno Amadou Kunkande ak kile di Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci sant yàlla ndax nag ñoom ñaar ñëpp ay charlatan lañu dañ leen a jiñoon ne dañu nekkoon de di def li nga xamante ne moo jëm ci association de malfaiteurs ak tentative d'escroquerie maanaam di nax ay nit yoo xamante ne dañu amoon yaakaar ñëw ci ñoom ñoom nag dañ leen mujj reconnaître ci ne ay coupable lañ maanaam lañ leen di jiiñ ñoom ñoo ko def ci wàllum escroquerie ak wàllum charlatanisme maanaam ci ay naxaateeg yu nu mel tribunal bi nga xamante ne nag moom moo di grande instance bu Thiès ñoom nag dañu mujj condamné ñi lee nga xamante ne ñoom ñoo di Thierno Amadou Kounkandé ak kii lee di Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci sant yàlla ci dix mois de prison ak amende bu toll ci quatre millions maanaam ñeenti ci millions ci sunu xaalis ku ci nekk ci ñoom ñaar nag war a joxe li lee nga xamante ne moom moo di deux millions pour fàttali nag ki lee di Thierno amadu Kunkande ak Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci sant yàlla. tey nag ci kaw fàttali ñu fàttali leen nag li taxoon ñu euh, daal di leen arrêté ñoom nag dafa am waajoo xamante ne dañu ko daan yónnee xaalis euh, ngir mu jëndal euh, ki nga xamante ne moo ko yónnee xaalis bi kër fi ci Sénégal moom nag ci la daal di xamante kii di Kunkande ak sant yàlla ngir nag ñu mën leen yóbbul xaalis ba nga xamante ne ndaw si daf ko daan yónnee mu toll ci 7 million moom nag waaj dal di koy yóbbu ca ñoom Kunkande ngir ñu mën ko multiplier moo indi li leen nga xamante ne moom moo di seen arrestation maanaam mbirum kalpe magique ak yu nu mel loolu nag moo tax xibaar bi nga xamante jot nañ ko léegi daal mooy kii di Kunkande ak Ibrahima Niass ñoom nag dañ leen mujj condamné six mois de prison ak amende bu toll ci quatre millions ñoom ñaar ku ci nekk war a joxe deux millions mbokk yi xarit yi woy leen di abonné ci sunu people tv jërë ngeen jëf